beaucoup battu pour un projet un projet pour sauver le Sénégal. Une vision, un discours mémorable qui marquera l'histoire. Préparez-vous à être captivé. Rejoignez-nous pour entendre les paroles inspirantes de notre leader, Ousmane Sonko. Préparez-vous, soyez prêts à vous immerger dans une soirée exceptionnelle, porteuse de renouveau, en route vers la victoire en 2024. lu leen mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu bu dee ñoom daf leen jaral te ñu nañu xoolaat suñu bop parce que li ñu nekké jaamu yalla la défar sa réew la gérer sa avenir doomi ci sët la koku jaamu yalla mënu ko raw mbokk yi alaykum ñu ngi nuyu di leen ziar di leen jajjufal leen ci wéru sell wi di wéru tabaski di dellu di leen baal wax di leen banax di ñaan yalla mu nangul ñu ñëpp di nuyu sénégalais yëpp nag ñu ne fii ak ñu ne bitim réew delluwaat gën gëna remercier rek mboolem seen sénégalais yi rawatina militants yi sympathisant ci taxaway suñu wet ndax jamono ji ñu tollu kenn umpulewul ni kan jafe na ci ñun ndax eh, ay semaine yi semaine ngi ay fani fani ngi ñu daal di yónni ay alkati nguuru Macky Sall yónni ay alkati ñu barikade sama koñ yépp rawatina nag sama kër maag sama njaboot ba kenn mënul dem kenn mënul dikk ñu eh, dund tabaski bi ci noonu yàlla ya def suñu anniversaire ñëw ci noonu waaye sénégalais yi am ci taxawaay boo xam ne wéetuñu benn yoon ñu leen dellu di leen gërëm di ñaan yàlla may ñu fekke ko ay teweni eh, teweni teweni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 loolu rek doy na sëkk ci ndam ñu si sant yàlla waaye bu ngeen gisee ma fas yéene def ay vidéo def vidéo yu bari ba ko fi euh, sóoraale ëllëg la dànk fanaanal la ndax euh, am lu bari lu ñuy yëg wala lu ñuy yëgal ndax it ci réew mi ñu dëkk am fi ay soppe fépp nag foo dem am nañ fa soppe muy ci bërëbu liggéeykaayu administration bi muy ci justice bi muy ci police bi muy ci gendarmerie bi muy ci renseignement généraux yi foo dem rek yàlla may nañu ñoom fay soppe yoo xam ne ay patriote lañu moo tax léeg-léeg ñoom bu ñuy nasaki ki nocc noonu dañ ci teel a jot ñu xibaar ñu nag ci fan yi nii euh, barricade yi ñu def sama kër nii yëpp waajal rek la waaye lay seen mbéwét la ñu waxtaane ba tënk ko mooy ci fan yi dinañu teg loxo ci ci ñun mooy ñu jàpp dinañu arrêté te jàpp nañ wala bëgg nañ ñoom suñu xasee ba arrêté ma dootuñu ma ba ma génn fi lekk élection yi rombul muy loo xam ne dama ko jot ci ay xibaar yi wóor te wér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 waaye seen mbébét yemul rek ci jàpp ma xam nañu mbébét ci fii ma leen koy waxee nii ci liñ ma xibaar ci lu leer mooy ñi nga ci tànku ne dañuy tas suñu parti Pastef les patriotes te fas yéene nañ ko tas la tax nag ñoom ñu bëgg ko tas mooy jàpp nañ ni doyul rek ñu ne soo ko dem élection waaye dinañu fexe seen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 lépp lu jëm ci élection amuñu fu ñuy fëlee lu corruption de la jeunesse ñu bëri jàppoon ni sax ndaw ñi ni ñu riiree topp moo tax ñu def loolu ñuy wax corruption de la jeunesse ndax dafa di ay délits yu ñàkk fayda yoo xam ne amatul benn dëkk bu bu bu bu bu faydaw tuuti boo xam ne di nga fa fekk wax ju mel noonu di fa fekk genre délit yu mel noonu ñoom ñu ne ca loolu la ñuy langaam ma xam ne nag ci lañ ma yéegal bii pa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 ñu jégé fofu ne programme nañu procès bi gaawon tu fexé ba am condamnation même sous des premières instances da xam nañ ni ñu jéxal dossier bi fi ak élection suñu défé ba ubbi dossier bu mënu ñu ko jéxal fi ak élection ñoom xam nañ wayé liñ ci juddu moy dañu fexé ba am dara lool nak liko andi yépp nak moko sénégalais yi moy barki dembo ñay bii ci wéru suréel bi bi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 la ci kanam nag rawali gët dinañu xam ndax loolu dina am wala du am waaye dama ne buñ ci tollee xeex bi lu mu laaj rek dinañ ko def lépp lu ñu mën a def pour téye leen ñoom mën a def accélérer li ñu bëgg a duñ ci mën a am li ñu bëgg a am ñoom fii rek élection yi lépp lu ñu mën a def rek nañ ko def lu mu jar rek dinañ ko def ba ñun nit ñu tënk seen loxo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 mu essayé la faagagal bu boobaa yow da ngay jëfandikoo sa xel na la ëpp doole nga ëpp ko xel te bu soobee yàlla nañ leen woon ni ñoo leen ëpp xel téeméeri junni yoon ñoom ak seen état ak seen renseignement généraux ak seen gendarmerie seen police loolu yëpp boo ko tënkee ak lenn ci seen magistrature nga xam ne da leen dañoo los du ànd ak ñoom ñooñu ñëpp boo leen dajalee nañ leen woon bu soobee yàlla bu dee fa ñu bëgg a jëm lañu jëm. ci semaine yi ñu ñëw ci weer yi di ñëw nañ leen won ni ñoo leen ëpp xel bu soobee yàlla moo tax ma ne ci lii ñuy dëgmal muy élection yi ñu jëm ñoom nañ def tout pour gàllankoor sama candidature man Ousmane ndax Macky Sall da ko waat wax ko ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañ ñooñu xibaare ma ko keroog bi annoncé barki dem Ndiaye bi mu annoncé ni mom du nek candidat la waxtan ak ñooñu waatal leen ne leen Ousmane Sonko du nek candidat ta japp na ni lu ko daal rek mako tek japp na ni mako ko 3e candidature japp na ni ma ma won se africain yi ak sénégalais ak aduna bi lan moy xar Macky Sall deug deug dëgg loolu nag la ma la munul baal te du ko baal bi abadan mom ak ñiko wër bis bu ne ñu reñoko ba xaaju guddi foofu mer kon waat na ni man duma doon candidat dajale na ay magistrat cour suprême ba conseil constitutionnel ba jox leen digal ba noppi ci loola te buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ndax ko defee ci anam goo xam ne àdduna yëpp dina xam ni Sénégal ridiculiser nañ ko ci fañey jaare ñoom pour tere ki ñëpp jàpp ni mooy chef de l'opposition pour mu bañ a candidat buñ ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp mu téye conseil constitutionnel ci loxoom Daouda Badio wala eh, ngeen jégal ma ci Daouda Badio bi ndax dama amoon collègue bu nekk impotu de ba Daouda Badio waaye Badio Camara laa bëgg a wax mu téye ko ci loxoom waaye yemul ci moom dina am ñooñu nag buñ ci toll dinañu am lu ñu jëfee bu xam ne dina yem Sénégal yëpp waaye yemul ci moom. ndax Sénégal justice bi moo tëree noo xam ne nooy gën a yéegee rek mu gën a doy waar nooy gën a yéegee rek mu gën a fënax noonu la def ak cour suprême ba lem bëgg foofu dina ko am soo wàccee nag ci juridiction yu ndaw yi bëri na tey ay magistrat yoo xam ne ña bañ ba léegi waaye malheureusement bëri na am na ci tam ñoo xam ne xam na fu ñu mën a jaar ak ñoom. li may wax nag tekkiwul ni soo demee fu mel ni cour suprême la fa nekk yëpp dafa fa nax déedéet am na fa ay magistrat yu di am na fa ñoo xam ne ñu ngi bañ ba tey waaye Macky teg na fa ay nitam yoo xam ne depuis premier président ba kenn nag keneen boo ci tollee di ngeen ko gisal seen bopp ñoom lay sant ne leen dossier bi gaaw gaaw leen defal ma ko dossier bi na ngeen ci attee nii te noonu lay demee comme nag loolu xam nañ ko te xam ko xam gu wér day jaadu bu dee njiit la te ngeen wóolu ma ba jiital ma jëfandikoo sama xel ñoom ñu jëfandikoo seen doole ak seeni magistrat man ma jëfandikoo sama xel xel googu nag moo ma andi ci maw xalaat ci stratégie ndax fan yi yëpp depuis bu may nekk Ziguinchor ba ni ma ñëwee Dakar nii daanaka mois de mai mois de juin ba juillet maa ngi xalaat di déglu it yi ak sympathisants yi ma dégg lu bëree bëri bëri ñu naan ñun amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan Z ñun benn candidat rek la ñu am te day jàll par force muy Ousmane Sonko loolu nag dinaa leen bàyyi ngeen continuer di ko wax ndax baax na ci stratégie baax na ci bataille psychologique bi waaye duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee rek sànq projet bi duñ ko jëfee ndax buñ ko jëfee sànq projet bi may fàttali ni projet bi ba ñu dooree politique ba léegi yéen sénégalais projet la wax la waxtaan ak yéen waxuma ak nit de mosuma leen ne je suis la seule constante ñi ci des ñëpp ay variante lañ mosuma leen ne sudul man c'est le néant moo tax ñun dañu amal solo rek mooy nañu jàllale projet bi buñ ko jàllalee ba noppi ñu dajewaat ñun de côté xool nañuy tojee suñu bopp jël ak ñuy defaree réew fu ñuy toll projet bi day soxla passeur passeur rek lay soxla kon ñun suñu demee dem dem dem dem ba gis ni frontière am na def nañu benn barrière def ci seen i grillage dañuy soxla beneen stratégie boo xam ni pour passage rek la waaye tekkiwul ni projet bi tayle nañ ko wala joxe nañ ko wala saraxe nañ ko déedéet kon projet bi mooy suñu te ñun projet bi faw mu jàll te du jàll deux mille vingt neuf du jàll deux mille trente quatre du jàll du jàll projet bi dañoo bëgg mu jàll ci deux mille vingt bii ci kattanu yàlla. ak bëgg-bëgg Sénégal moo tax usman Sonko am na solo lool ci projet bi am ñenn sax dañ naan Sonko mooy projet bi projet mooy Sonko waaye projet bi Ousmane Sonko du ci ko xam ne ku indispensable la ba bu fi bu fi ñàkkee rek projet bi taxaw bu loolu amoon rek ma xam ne échoué nañ ndax loolu moo indi échec gu ñu bëree bëri bëri. moy li ñuy tabax yëpp dañ koy tabax ñom ci sen tu, ñom ci seen tur seen tur seen daraja lolu amul ci pastef te yàgg nañ ko wax yemul ci discours dañ koy jëf ñëpp gis ko munoon nañ ne dañuy nekk candidat par force bu ñu dul candidat li dina fi am lële dina fi am dedet dama ni man Ousmane Sonko ba mënul nekk candidat danañu fexe ba projet bi jàllale ab wala ay candidat loolu moom mooy suñu préoccupation bu njëkk ci liggéey boobu nag wala ci xalaat boobu laa jàpp ni buñ ci tollee ba war a dem uti parrainage buñ ci tollee buñ ma joxee fiche de parrainage mu uti parrainage ñëpp daanaka soxlawu ma ko wut sax ndax fi ma toog suma ma newoon parrainage laa bëgg waa Tamba dinañ jóge Tamba ñëw pare ni waa Matam def ko waa Kidira def ko waa Ndak wax ma waa Ndakaar ak keneen ñi nga xam ne jege nañu fi waaye buñ ci tollee buñ ñu joxe dinañu dem uti parrainage buñ ñu ko joxul it dinañu libéré même buñ ñu ko joxe sax dinañu fexe ba am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañoo ànd ak ñun ñii nekk ci parti bi. di membre Pastef yu fës yu ñëpp xam ñii di suñuy allié ñëpp xam leen ci ñu ànd ñoom ci loyauté ak discipline dinañ ci tànn ñoo xam ne daañ lañ ne dem leen jëli ay parrainage ay fiche ci biir parti bi ngeen dem uti parrainage wala ngeen déglu ñu waaye noonu it dinañu seet ci suñuy alliés ñi nga xam ne ànd nañu ak ñoom te déclaré wuñu candidature pour demal seen bopp ba fi ñu wax nii te amaana peut-être duñ ko déclaré ba keroog ñu toll ci war a dugg ci parrainage bi ndax ñu ko déclaré te di suñuy alliés am na ñu ko defagum te am nañu courtoisie ak yéeg bu doy woon nañ ma ci téléphone. ne ma ah ñun de dañoo décider nekk candidat ma ne loolu lu baax la parce que suñu ànd ci biir Yewwi Askan Wi loolu la ñu waxtaanoon dañuy dem ànd ci élection locale ànd ci élection législative parce que élection yi élection raw gàddu la da ngeen di boole dajale waaye bu ñu eggee élection présidentielle ñu fi nekk ñëpp ay leader lañu ko ci xool boppam ba yaakaar ni bëgg nga ko te mën nga ko am nga sañ-sañu dem pour sa candidature teewul nag dañuy bàyyi Yewwi Askan Wi. mu nekk cadre boo xam ne peut-être bu ñu mutualiser dajale suñuy doole dina gën a yombal supervision élection yi mu am ñoo xam ne ba léegi décidé wu ñu nekk candidat ñu décidé ànd ak ñun ànd ak man en tant que candidat fas yéene sax taxawal coalition boo xam ne day day doon coalition wu ko président ma ne ci ñooñu ci biir ñooñu buñ ci tollee gannaaw nga xam ci parti bi la bokk moo xam ñett la ñuy doon wala juróom wala fukk nga xam dañ leen naan dem leen uti fiche dañu seet tam ci suñuy alliés ñi ñu àndat boobu ba léegi ñoo xam ne dañ leen naan yéen it dem leen ngeen jël fiche parrainage muy suñu alliés ñu gën a jege ñoo xam ne tey ñu ngi ci benn kadr di jëflante di liggéey ñooñ dañ leen wax ñoom it dem uti seeni fiche de parrainage ñu téye ba nga xam ne dinañu am option yu bëri parce que dañuy wax ne jënax boo bëggee mucc jënax bu bëggee mucc day bëri pax tubaab ne on ne met pas tous ses œufs dans le même jël soo amee ay nen doo boole nen yëpp ci benn benn benn benn panier ndax bu pañe ba daanoo rek dootoo dese nen yii da nga leen di dugal ci mbuus mi yi nga dugal ci pañe bi li nga dugal leen ci bool bi loolu stratégie boobu dañu bëgg a reproduire mooy nañu fexe ba ñuy jël fiche bari ñu fexe ba ci ñooñu jël fiche mu am ci ñenn ñu am parrainage bu mat bu mucc ayib loolu mooy suñu stratégie buñ leen ko waxee nag bu ñu dem uti ko bu boobaa bu dee man bàyyi nañ ma ma dem ut sama fiche pare euh, sama parrainage déposé ñoom it dañuy déposé ñi am ci ñoom ñi jot a am ci parrainage ci ñoom bu dee tere nañ ma man. bu tere nañ ma du tey nañu am nu mu tuuti tuuti tuuti ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom ci ñooñu ñuy jàll te loolu bokkul ak ñi nga xam ne suñuy allié lañu suñuy allié lañu peut-être ñoom teel nañu décret lañuy nekk candidat waaye suñuy allié lu mel ni euh, soxna ay dëmbooj ak ñeneen ak ñeneen sumay may lim dinaa juum nga xam ne suñuy allié lañ te ñëpp xam ko ñu bokk ci yeewi askan bi bu ko defee bu ñu génnee ci mbir mi ba dem conseil constitutionnel ba conseil constitutionnel pare li muy def ci parrainage ci contrôle juridique des dossiers bu ñu génnee ci loolu ba ñu ne ñu am nañu ay candidat ñu seet ndax kenn moo jall ci ñun wala ñaar wala ñett wala ñeent ba juróom waaye l'essentiel na ñu am ay candidat bëgguma sax ñu am benn candidat ma bëgg ñu am ay candidat bu ñu yàlla may loolu rek ngeen xam ni ñoom seen pexe na sax na bu ma yemoon rek ci man ne man rek may nekk candidat ndax daloon na ñenn ñi deux mille dix neuf bu ma yemoon ci ne man rek kay nekk candidat bis buñ ma jekkoo rek projet bi yëpp ñàkk candidat boobaa dañuy obligé génn ci projet bi dem seeti feneen fu ñuy jàppale ji waaye bu ñu fexee ba jàllale ay candidature donte jàpp nañu candidature Ousmane Sonko projet bi mucc na ci wàllu candidature te bu muccee ci wàccu candidature mucc ci boppam tax bu soobee yàlla bu ñu amee candidat dem élection gagné au premier tour muy Ousmane Sonko muy beneen candidat buñ ko amee incha rabbi gagné au premier tour. kon lii mooy stratégie bi mu des nag bu ñu demee ba jàll ñu ne ah yàlla may nañ ñu am ñaari candidat yàlla may nañ ñu am ñeenti candidat di ma ne naka laay doxalee mbir mi dama waxtaan ak ñi ñu ko seqal ñëpp ñenn ñi waxtaan ak ñoom waxtaan yu xóot ñu ne ma ñun ñëpp doyloo nañ la yow lépp teg nañ ko sa buñ ci tollee foo joxoñ foofu la loo décidé noonu la bu dee sa candidature jàll na wax ci jeex na ñun ñëpp dañuy désister ñëw taxaw sa gannaaw ñu dem defi campagne gañe bu dee nag sa candidature jàllul bàyyi nañ la yow nga xool nga seet nooy tànnee ki nga tànn rek ñu xam ni kooku la ma leen ciy gërëm leen sant ñoom ñëpp ndax loolu confiance la estime la te du tuuti ci man ma ne donc bu ñu yàlla mais ba ñu jàll ba am ay candidats yu jàll ñaari schéma ma mun te dinaa jël décision diggante ñaari schéma yooyu te ci nekk dinaa def ay vidéo teg ba nga xam ne buñ ci tollee su ma leen ne lii mooy choix bi rek yéen samay mbokk sénégalais dinañ leen tegal vidéo bi mu leen yéen ñëpp ngeen xam lan mooy décision bi kon ñaari possibilité moo am bi njëkk bi mooy ye ma tànn benn candidat yeneen candidat yëpp désisté ñëw ne kooku mooy suñu candidat ñu jàppale ko ñëpp taxaw ci gannaawam ñu dem fi campagne campagne bi nag ju teg ko ci programme bi nga xam ne mooy sama programme bi ma liggéey mana ak parti bi ñu ne fii ñu ne bitim réew ñu liggéey ko muy programme Sonko 2024 Sonko président 2024 di programme boo xam ne du lu bees ndax mooyoon programme de mille dix neuf bi dañ ko toggaat rek defaraat ko actualiser ko dugal ci loo xam ne lu koy gën a jëmmal la ak lu koy gën a taaral ak lu koy gën a matale loolu mooy doon programme bi quel que soit le candidat ñu ànd ñëpp bu dee dama ne kii mooy candidat bi ñeneen ñëpp ma ne leen déggi da ngeen di teggi seen loxo daal di ñëw jàpp ci gannaaw candidat bi ñu ànd liggéey ñaareelu possibilité bi mooy ma bàyyi ñu am candidat yu bari waaye ci biir candidat yooyu dinaa def sama déclaration wax ci Sénégal yëpp ni kii mooy candidat bi kii la ñu war a woteel kii mooy candidat bi mooy candidat projet bi moom la war a woteel ñeneen ñëpp nag candidat projet bi lañu waaye dañuy ñëw jàpp dooleel candidat bi sans pour autant ñu bàyyi seen candidature di ma ne ah loolu est-ce que du andi confusion est-ce que loolu du tax ñëw ñàkk ay voix lu mën a nekk la. waaye def nañ fi combinaison yu gën a compliqué yooyu tax bi ñuy def intercoalition wallu yeew yi ñëpp jàppoon na ni du jàll parce que day nit nit ñi duñu retrouver wu liste département sangam yeew yi koy jiite ñu dugal ay député wàllu liste département sangam wàllu moo koy jiite ñu dugal ay député yeew yi ñu ne dina tax ba nit ñi duñu comprendre ndax suñ ñëwee fekk bulletin yeew yi ak bulletin euh, wàllu te war a voté wàllu foofu et non pas dina am ñuy jum toujours dem jëli bulletin yeewi dugal te loolu dañ def ñuy ñàkk loo ay voix muy dëggit waaye gis nañu yàlla defal ñu sutura ba mu dox kon mun na am ay inconvénients wala ay lu ci nit di ragal waaye mun na am tam avantage avantage bi mooy lan mooy bu ñu amee ñaari candidat wala ñetti candidat wala ñeent Sénégal yëpp xam ni kii mooy candidat principal bi ñeneen ñi nangu ko ñoom it day tax ñu mën a démultiplier suñu ko campagne fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñaari temps d'antenne wala ñett wala ñeent bu boobaa kenn ku ne dina mën a jukki lenn ci programme bi te ñeenti candidats bokk benn programme commun muy programme bi nga xam ne mooy ma leen wax sax kon fu ñu doon am benn temps d'antenne dinañ fa am ñetti temps d'antenne wala ñeenti temps d'antenne wala juróomi temps d'antenne gën a mën a waxtaan ak Sénégalais yi ci li nga xam ne mooy suñu programme te Sénégalais yëpp xam ni programme boobu mooy programme Sonko deux mille vingt quatre donte tere nañ ko mu nekk candidat ku déglu programme boobu déglu nga Ousmane Sow quel que soit candidat boo jukki wax leen kon loolu dafa am solo ñaari option yi moo ci am te bu soobee yàlla buñ ci tollee dinañ leen wax ban mooy suñu décision ci ñaari yooyu. quelle kan que soit décision bi ma jël nag damay ñaan ñepp nangu ko euh tak sen dig nangu li ñu tay décider ba paré sóobu ci liggéey bi quel kan que soit ku ñu tan ak ku ñu tànnut ndax projet passif bi du projet individuel man ma mëna renoncer à tout pour projet bi Jital projet bi ba man mu jaral ma man ma baña a féetale sama bopp ca kanam baña def li tubab di égoïsme moy man rek man rek ba tax mu ñu xaj candidat kon gisuma keneen ku wara xalaté neneen ak ko munti doon ñun projet bi lañ wax bu tan jotté dina tan ci anam goo xamni lenn rek moy doon sama yitté moy projet bi xawma ci xarit xawma ci mbokk xaw ma ci leneen projet bi rek ndax li ñuy sacrifier ci àdduna projet bi moo tax ñu sacrifier te projet bu weesuwul njëriñu sénégalais yi nger jeex ci réew mi sàcc alal réew mi jeex fi alal réew mi ñuy tay tay leen euh, bitim réew di jël di yóbbu jeex fi ñu moomaat suñu bopp séddale bi ñu def ko ci nu gën a mandoo ba kenn ku nekk jot wàllam ci réew mi projet bu weesul loolu projet souveraineté là avant tout c'est un projet souverainiste Donc, on est un projet panafricain Nous assumer ko kon jëmm yi amul solo de bu ci kenn a commencé par man tout le nga ci foo xam ni bu dul yow rek neen la ku xalaatee noonu rek projet bi donc buñ ci tollee ba ma ne nii laa ko xalaatee ba joxe samay orientation képp ku bokk ci Pastef képp kuy allié képp koo xam ne gis nga sa bopp ci projet bi nangul ni noonu la nga takk sa ndigg ñu jublu ci liggéey bi ndax bu ñu booloo mankoo rek ñi xajuñu si ñooma ah. bosu élection bi bu ñu booloo mankoo ak candidat bu munti doon ma ngemb ko man parti bi ak allié yëpp ànd ci bosu élection bi du ma ne dix huit heures waaye midi bi jeex bu soobee yàlla loolu nag dafa laaj kenn ko ne fàtte sa bopp ndam rek ndax bu ñu demee ba yàlla teg réew mi suñu loxo ba sénégalais wóoruñu ba dénkuñu képp koo xam ne liggéey rek moo la tax a jóg am nga ci sa place ndax état ku xam ni mu toll ak li ci nekk ci responsabilité président premier ministre ministre d'État ministre délégué ministre simple ministre délégué directeur directeur général chef d'agence ambassadeur xaw ma lan ak lan ak lan képp koo xam ne am nga compétence te liggéey rek tax la jóg bu ñu yàlla dénkoon réew mi te nga bokkoon ci projet bi di ci liggéey daañu la dénk ne la demal liggéey xool la nag boo liggéeyee te jaaral ko ci yoon ñu ne la jaajëf jox la promotion waye képp koo xam ne safaan bee ko taxoon a jóg foog ni la woon mën naa mën naa continuer dama fiy nekkal sama poche dama fiy nekkal ay mbirum caaxaan wala awma compétence bu boobaa it imma duñ la jox wala buñ la joxee ba pare doog a gis loolu ci yow ñu nangu ko rek mu jeex tàkk waaye buñ yàlla joxe xool xëccoo du am ndax nit dinañ la teg ngay liggéey liggéey ba yaay sonn mënatuma damaa bu ngeen jël ma dem noppalu ci tuuti ndax liggéeyal sa askan liggéeyal yàlla ya la warul ànd bëgg-bëgg yu bëri ci sa sa mbiru bopp sa poos ak sa yu demee noonu kon buñ ci tellee ba ñu def décision ne lii la damay ñaan ñëpp mooy na ci ñëpp ànd jàpp waaye buñ ci tollee ba war a jël ba jël décision boobu damay tàllal sama loxo sénégalais yëpp nag sama mbokk acteur politique yi yi nga xam ne dañoo bokk opposition bi di leen tàllal loxo war nañoo dajale suñu doole ba nga xam ne li gars yi doon wax vote utile vote utile élection bi dafa war a gaaw te leer naññ waroon sax laam-laame ndax est-ce que gagné nañu premier tour am déet ndax bu ñu ne woon cinquante pour cent la ñu am sax ñoom ñu la bañ gi ne demeewul loolu élection bi premier tour la war a jeexee à soixante quinze pour cent wala yu mel noonu nga xam ne kenn munu ko werante te loolu dafa laaj Sénégal yëpp daje xaw ñaata candidat yi am de mën na am ñett lay doon mën na am juróom lay doon comme en deux mille dix neuf mën na am mu nekk dix wala quinze wala vingt wala trente yàlla xam waaye candidat yi nu ñu bëri bëri bëri ñaan bokk opposition bi yëpp mooy ñu def dajalam def vote utile su ma nee opposition bi nag mooy képp koo xam ne teg nga ni fi ñu toll noonu. buñ ci tolloo képp koo xam ne conseil nga ne considéré nga sa bopp comme opposant képp koo xam ne jàpp nga ni opposant nga talal nañ la ñu dajale suñu doole jëlee fi lii ndax lii musiba la ci Sénégal xaw ma ci xaj seen Pastef nag dafa di parti boo xam dañu am culture partage ak culture ànd ak nit ñi and nañu sax ba and ak ñoo xamne ñepp xalaatoon na jappoon nañu Pastef do and ak ñi bu ko defee gaay yi naan way moo fi ci tolli lañuy ñaan nit ñi ndax dinaa ko wax ak beaucoup d'humilité nag mais la yàlla def loolu réew mi bu dee ñun ñi bokk opposition yàlla jox na Pastef doole goo xam ne du lu ñuy werante wala ñuy laam-laami loolu nag yàlla koy def du suñu mérite buñ ci amee mérite 10% la 90% vingt yàlla la ndax ñeneen ñi politique yépp ëpp ñu leen ëpp ñu leen alal du dañ leen gën judd du dañ leen ëpp jàng ñu leen sonn ci politique waaye yàlla mooy tudd lu ko neex bu loolu amee nag ñu dem ba toll ci réew mi foo xam ne ñun ñëpp jàpp jàpp nañ ni mënatuñu continuer nii te fuy virage bi buñ ko ratee defe naa dina metti trop cinquante ans yi di ñëw daf enjeu yi wër Sénégal ma ne bu ñu tollee ci loolu rek ñëpp lañu war a def preuve de patriotisme moo tax ñuy woo ñëpp ñëpp am na ñoo xam ne ñu nga doon ànd ak Macky barki démb ci wàllu politique ñu nekkoon adversaire léeg-léeg mu tàngaan jër waaye bu ñu génnee ci Macky ndax man dama ne benn adversaire la am ci politique mooy président maki Sall ak nguuram xam nga beneen adversaire keneen ku may boole dafa fekk nga ànd ak président maki Sall ak nguuram waaye ko fa jógee tey tey tey ñëw taxaw samp sa dënn damay opposé mën naa ànd ak yow ñu ànd xeex ndax islam bi ñu ñu ñu bokk ñun nit ànd naag yëfaru màkk yi xeex yonent bi alayhi salaatu salaam rey ay nit yu bari ci ay saabaam ba ko mu tuub te keroog bi mu tuubee li mu andi ci islam gi ñëpp xam nañ ko ñoom Walid defe naa moom lañ doon wax sayfullah islam Omar Omar ibn Khattab keroog bi mu tuubee la ne man du ma bokk ci diine boo xam ne nit ñi dañuy làkkatu ci ay suusol di julli génn leen ngeen juli boobu julli ci kenn ñëmul woon génn julli ci màgg yonent bi doon ñaan naan yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari Omar yi ndax jàmbaar la ñu woon waaye boobu ñoom tuubuñu ñu ngi ànd ak yéefar yi sonaloon jullit ñi lool léeg sax ñu ñëw euh, torturer leen ki ñi seen jaam yi ñu amoon te ñu tuuboon di leen torturer di leen def lu ne yeneen ti mënoon na ne ñii si système ba la ñu bokk mais dafa ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma kenn ci ñaari Omar yi ba keroog Omar bu ñuy tuub xëy demoon bëgg a faagaagal ay mbokkam yu ñu leen ne tuub nañ mu dem fekk leen fa dégg leen ñuy jàng alquran su ma juumul sooratu taaxaalaw dañuy bu muy déglu. ba ba fi ñuy egg faalam annahu laa ilaaha illallah mu dégg naa dafa xam daanu noonu la jaare tuub ne tey nag bis ni ki tey tuub naa kenn ku bokk ci diine gi ma bokk dootul nëbbatu di julli génne leen julli fu leen neex ba ma gis kan moo leen laal ci màkk kon loolu am na soo kon bu bu dara am rek ñëpp naan ñu woy moo ne woon système bi système bi man mi ko théoriser maa gën a xam lan laa jublu ci système bi ñu naan système bi c'est des règles c'est pas les système bi c'est les règles c'est pas les hommes nit nu mu baax baax baax baax nga yóbbu ko ci système bu bon te mu nangu système ba day and ak système bu baax Waye nit nu mu bon bon bon bon bis bu d'accordé ni système bi mu nekkoon baaxul mu ñew fekk système bu ko gën day baax te légui nak lélé nak nit ni mu meloon ci bu may nekk ci système bu bon su doon malgré tout juboon na foofu bu ñew ci système bu baax moy gën ci ñi fa nekk xayrukum fil islam xayrukum fil jaahiliya defe naa loolu la xadis bi ñi gënoon ci yéen bi ngeen nekk ci jaahil bu ngeen tuubee ñooy gën ci yéen moo tax ca jamono maam ceddo ga ñi gënoon ci ceddo ga bu ñu tuubee ñëw ci ji nekk jullitam ñooy gën ci jullit kon ñun talal nañ suñu loxo ñëpp parce que tey senegal la ñuy wax waxuñu Ousmane Sonko waxuñu Massamba waxuñu Mademba ñun senegal la wax te moom rek la ñu te kuñu andal tam ci ngor ci njub ak ci bëgg réew wor buy am da du jóge ci ñun doo sa toog ba dégg passé wor na loolu amut ñun de lañuy wor waaye ñun duñu waraate parce que suñu deret moo ko mun politique ñu loolu kon ñi ngi woo ñëpp boñ ci tollee ñu taxañ li ñu mën a dajale yépp ci Sénégal

Rejoignez-nous pour entendre les paroles inspirantes de notre leader, Ousmane Sonko. En route vers la victoire en 2024.